1853 la gane adida mom Serigne Touba ca Mbacke Bawal andak mbolo mako ma ko Mbacke Bawal ndax ka jor xat nañu ci yëngu-yëngu bi am ci yoonu murit mënuñoo supporter xasaayid yi mënuñoo supporter mbindam Serigne Touba muy tag Rasulullaay ñu diko ko ko di jolli ca kaw mënuñoo supporter daanu yu murit yi daanu di yek ci kaw yi garab di daanu di yek ci taal yoram ngàññ di dugal seen bop ci mu génn di yoku mën nañoo supporter yaasal jëlaal yi sëñ Tuba ànd ak ñoom ñi ñëw dellusiwaat mbakke Mbàkke Bawal gamu-gamu gane woon àddina ci kër maamam ndax maamam Maamata Sali ak maamam ju jur way juram way juram mooy Maamata Sali mais maamam ji jur way juram ñu ko wax maam Maaram Mbàkke moo sancoon Mbàkke sëñ Tuba ñëwaat foofa dal fa ñoom nit ñi bari lool di sàkku si diine ñii di jébbalu si jàkka ju ñoddu sëñ Tuubaa day yéex a dem ngir jullee ci biir sàpp sa ca ginnaaw waaye ku taxaw ne allahu akbar sëñ Tuubaa jullee fa ginnaawam rek ñu mépp imaam ja daal koy sàkkal pexe ngir ne sëñ kenn du ko jiite loola tax sëñ Tuubaa ñoo ñee daan jiite ca jàkkaay mbakke Bawal sëñ Tuubaa xam ne gêné leen te bëggul tooñ kenn xam na ne si gêné na doomi soxna yi ca loola mu sanceb dëkk juróom-ñaari kilomètre fa xaw a fenk mbàkke penk wu ko tuuti te càmmoñu mbàkke tuuti ñu di ko wax daaru salaam sëñ Tuubaa jógee mbàkke baleen fa dem sanc daaru salaam ba mu sancee daaru salaam mbooloo ma toppaat ko noonu mel ni yoon wu dem daaru salaam mel ni yoon wu jëm ci marché ba mbooloo mi rut rut yi gën a bari ba sëñ Tuubaa yëg ne mbooloo mi bari na ñu ngi koy gene sax ci ni mu bëgg a jaamoo yàlla mënatu ko mu daw wan leen ginnaawaat demaat tuubaa ba muy dem Touba lépp aw xur la saawo moo fa gis lu niroog yoon yoonu nag la ay gayndeek lépp fa dëkk sëriñ Touba réer na leen ci xuru Touba woowu fukki fan ak juróom maam Cheikh Ibra moo ne mën Touba toog man te gisuma sëriñ Touba daldi dugg biir ci biir xur wi di wër di wër di wër ba mu am semaine mu yem ci pël buy sàmm ay nag. ne ko man dafa am ku may wër mu ne ko lu sol mu ne ko lu weex la sol mu ne seen nga bëb gele ci bir xurwa ba mu ne ko suufu bëb ba bo démé garabu bëb ge moy garabu laalo yi ci suufu bëb ga di ka fa fekk maam Cheikh rafal fu mu jaar day dam garab ak ngeer gi ngir du réeraat ci yoon bi ci xurwi di dam ngeer yi di dem pour bu bu departé war fa xam fi mu jaar di def di dem diko def di dem ba jak ba ca ron bëb ga ba muy jub bëb ga rek mu seen lu tal di julli mu xamni ki moy Serigne Touba. bi mu jullee ba noppi rek jël àlluwa ji tàmbalee bindi xasaayid sëñ tubaa da daan boole kaamil bi ci loxoom teg te yor kurus gi nii boole koog dolloog xasaayid bi muy bind ndax lu ñëw ci xel mi rek ci xasaayid di ci tagg Rasulullaah rek mu daal koy bind sëñ Tuubaa ku daan ku daan ñàkk jot la maam Cheikh Fall xaar ba jege ko ñaar fukki mètre daal di yuuxu laa ilaaha illallaah am jooju amma mu sikru fa huwa akbaru min kulli makana muridu yuksaru qad qultu salika bila israri wala ubali bi sabil inkari ba mu jollo mbero la ilaha illallah lolou fu mu seigne touba tubaa dinaan sentuba jollu Muramnyo ko ñetti yon seigne touba fi tasu ko mu raam ñëw ko seigne touba seigne touba mu ne ko ibra faal baba cheikh ibra ibra khar khar lañ koy woy khar xana ñing may wër de da ko lay wër bu baax fi seigne touba di wax ak cheikh ibra paregul Cheikh Rafal dafa gis lu bari ci Sëñ Tuubaa lu ñëpp gisul pareegul ci wax ji rek pitaxam mareem naaw yëg si ànd ak vitesse su métti ci mbaggam Sëriñ Tuubaa Cheikh Rafal di gis ngoob la ko doon daq moom pitaxam mareem tong ca roon sump ga jàkkaarloog Sëriñ Tuubaa jàkkaarloog pitaxam mareem mi tong ci mbaggam Sëriñ Tuubaa Cheikh Rafal di gis bi taxam maram mi di xool ngoob ba yàgg mu ne ko raw naa ngoob li ne ko wax nga dëgg kooku ku làqu ci ginnaawam raw waaye yow laa naroon a añee te moom du tas yaakaar te man xam naa ne naa añ tey Cheikh Rafal di dégg sëñ Touba di dégg sëñ Touba ne Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko demal wutali ma ginaar ginnaaw bi dialogue boobu amee lu jiitu dialogue boobu am la ko ne xam na ne am na lu nar a xew mu ne rafaal demal wutali ma ginaar Cheikh rafaal génn neew ko jëndali ma neew ko ñaanali ma neew ko yelwaani ma da ko ne wutali ma wut te Cheikh rafaal li sëñ bi wax rek à la lettre la koy exécuté di wër ba egg ca cët ak pël ga fekk fa ñuy fecc di wër buur a pël ba naan yólla leen ba da Cheikh dem xool ginaar ga gën a màgg ga gën a rëy jàpp ko ñëw taxaw jàkkaarloog sëñ Tuubaa ànd ak bu eh, buur ba laa bëgg a wax ànd ak ñey wër di wër pël bi di way mu ànd ak ñoom di war saa su ñëwee ba tolloog buur a pël bi nag yëngal ginaar gi joxoñ ko joxoñ ginaar gi joxoñ boppam ne ko yooyu la leen ba dantaan ba muy ñetti wër ba mu ñëwaatee seex buur a pël ba jël ginaar gi ne ko mbaala ya mbaala ya joxaat ko ko joxaat ko Seex ne ko ya mbaala ya jox naa la ko Seex Ibra Faal daw ginaar gi wuti Sëriñ Tuubaa ba mu ñëwee Sëriñ Tuubaa génne paaka bu toll nii ne ko lewetalal ginaar gi Cheikh Rafaal lewetal ginaar gi mu ne ko génneel li ci biir soq ko ba mu set talak ko Cheikh Rafaal sawar ci lool bég lool jàpp ne sëñ Tuubaa nag tey xiif na waaye tey mu lekk ba mu ko lekkee mu ne ko rabbal ma ndabal ndabal ngeer defal ma ci ginaar gi mu rabb ko mu ne ko rabbaatal leen ndabal ngeer def ci ginaar gi te ub ko mu defee mu def lépp rabb ndabal ngeer def ca ginaar gi rabbaat ndabal ngeer ubbee ko ginaar ga ba loolu amee nag lépp raxam marem mi naaw tong ci mbaggam sëriñ Tuubaa ngoob li ne ko yow laa yaakaar na añe te kii du tas yaakaar sëñ Tuubaa jël bant bu gudd felen ko ne Cheikh Rafal ji ñax ko ngoob li Cheikh Rafal ne ko ma xaaj ko kon mu yóbbu genn wàll bi yow ma bàyyi la fa genn wàll mu ne ko lépp ngoob picc mu mag la muy lekk ay picc picc mu mag la muy lekk picc yu ndaw yi sëñ Tuubaa jël bant ba jël pañe ba felan ko ngoob la ngoob la naa woon ko ginnaaw naaw ba kenn séenatu ko ci kaw mu wàcc ak vitesse ne cëfit ginaar gi spidit départ ginaar gi Cheikh di gis pitaxam marem miy def gis loolee bokk na ci Cheikh Rafal fa la ko sëñ Tuubaa jaral dafa am yu mu gis yoo xam ne ñu bari gisuñu ko tisbaar daal di jot bi sëriñ Tuubaa noddee gaynde gu góor ak ñëloor fexe na ci fi féete penku ni wëqit départ gaynde gu góor fexe na ci buntu jumaa ji féete kër sëñ Fallu ni wëqit départ ci buntab sawa bi teg ndakaaru noonu ci buntu bi féeteeg kër sëñ Saaliw noonu muy yenti gaynde yi ñëloor yoo xam ne Cheikh Rafal teg na leen bët bi sëñ Tuubaa noddee bi mu ne allahu akbar ñeenti gaynde yooyu ñoo tëb fa la Jibrilu ñëw ne ko fii day ëllëg dina doon jumaay joo xam ne mooy doon jumaay ji nga xam ne mooy sa jumaay te mooy sa barab bi nga xam ne fi lañ la war a def moo tax sëriñ Touba bi nga xamee ne Samba bi ànd boole nañ kook moom nit ñi gën a bari nit ñi gëna bari nit ñi gëna bari fofu ci Touba Serigne Touba wat Touba wat fa ñu wax Mbacke Kadior fofé ci Mbacke bari Serigne Touba fa demal bopam ngir wat ngir daw nit ñin ñe gëna joru ci koom nak ta wa Jolof le kilifaay bawal di mañ seen ak njabo di len fa di toppi ku ñu diko muñ fekkut nak boori Jolof fekkut kilifaay Jolof fekkut doomi soxnaay Jolof ñom lool mënuñu ko Nak tolore gogu nak ñi Nak tolore seen njaboot di top sëriñ Touba motax ñu jaxasoo koog borom dara fekk Samba Law bi fekk Tentanoor ma ngay fexee mbir ndax Aliou Diouf Lambaye ak sëriñ Mamar Mané ak sëriñ Babacar ndjay Cargaan biñi xëc ci nit ñi di yobbu Touba Tentanoor da leen a woo ca pencam Lambaye ne len degg na yéen nga yobbu yóbbu Touba nga yobbu nit ñi Touba dama bëgg lool dak ñu ne ko lool de mu dajale leen nag ca péncam Lambaye woo mbooloo mi di leen rey ne yow Aliou Diouf Lambaye saab jarbaan nga ci yow lay jikki dama lay wone ne prent yi daa bari ci Sëriñ Tuubaa ci jamono bii nag daal jël aw nag fekk ci guddi gi rey naw nag dékkundu deret ja xooj paaka bu gudd cib siwo bu dugalee kenn ci ërmbël bi rek génne paaka bi toq mu ne rey naa kooka fekk dereti nag ya daa réewantu am xel dereti nag waa ana Babacar Ndiaye Cargaan ne ko rey naa sama jarbaat di Aliou Diouf Lambaay yaa ci topp de mu ne ko Mbàkke mu ne ko Mbàkke ngay wuyoo mu ne ko Mbàkke fukke jàpp leen dugal dag yi dëggul mu xoojaat ñu téye ko foofa xoojaat paaka ba génnaat muy toq det ñëpp ñëpp yuux mu ne ana sëriñ Mor Maane mu ne ko Mbàkke mu ne ko Mbàkke ngay wuyoo di nga dabi gaaye de mu ne ko Mbàkke fukke waxoo dëgg de da ngay kàcc folli la tey tekki sa ndombak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo ndekete murit yi booba ñëpp mer ba fut ñëpp yuuxoondoo ñu song ali euh, ñu song teñ tanoor ca lañ koy darti darte moom teñ tanoor ba ca jàkkaay darmbel mu kalaami sëriñ Tuubaa fekk buur yu bari kalaami nañ sëriñ Tuubaa ca la ko borom ndar wooyee ñu yóbbu ko ndar boole ko gaynde pour mu rey ko gaynde ga jébbalu ñu bari gaynde leen njëkk doon murit ñëw waaf ci sëriñ Tuubaa ñu ànd yendu ba ngoon tubaab yi ne sëriñ Tuubaa dimbale ñu jàppal na ci gaynde gi fatal nu ko ca palaasam jàpp ca noppam gaynde ba fatal leen ko ca palaasam ñu wàccee machine ba ñu ne kii bu nañ ko yóbbu Ndakaaru mooy ñëw ndakaaram gi ngay wax kat ba ñëwee ñu tëj ko ci selil selil mooy néeg bu gàtt néeg bu xat néeg bu am yuy jame bi sëñ Tuubaa tegee tànkam pont ya jam ko fii ci ndakaaru gi mu yëkkati benn tànk bu teg ko ci kaw yëg ne pont bii sar na bëtt na mu commencé jàng sóoratu bàqara saa su julli jotee mu nodd taxaw julli ca taxawaay boobee te ndaxawaay ba neexut di ko def ba muy ñetti fan sëñ Tuubaa lekkut naanut fii ci ci ndakaaru gi la desoon ca kaala dañ koo dagg bi ñuy toj néeg waaye bi mu jàngee bàqara ba mu jeex ci ñetteelu fan bi jàng sóoratu imran ba mu jeex néeg bu dana kët cit sëñ Tuubaa ni pël li génn mel ni jantam do njolloor ca la ni salim tout min al ahda ituran ma altija li rabbi wa babulahi lam yakku murtaja mucc naa ca noon ya de te bunt yàlla yi tëjuwul tey jii laa gën a dëgmal yàlla ndeysaan ñu mer ca loola ne léegi nag suñu néeg bii ñu tëj ko ak suñuy karnar mu ne dajji tey ma xam boole koog nag wu ñuul woowu nga xam ne mooy nag indien yooyu ngay gis nit rek la ñu mën a gis ci ubbi ko ci bato bu dawee tabi ci géej gi de te war mbël bi gudd na lool fi ñu ko booleeg nag bi moom Ahmadou Bamba bu ñu nee kulbét nag euh, bunt bi Serigne Touba ak wi doo nga jàkkaarloo face à face dara doxul seen diggante Serigne Touba bi wi wut man wax baat ya ca alxuraan wa ufawwidu amriya ilallah inna allaha basirun bil ibadi jubale naa saa lépp te yàlla xam ne tey laay mujjee dund moom nee na gis naa nag yu wut si ma ànd ak xadar ngir ma faat ma bàyyi ma gis nag way jëm ci aw asamaaw nag way dem ci kaw asamaaw ba egg foo xam ne lu ama ci laaf àggu fa munu faa egg sëñ Tuubaa wax lii lu amee laaf nag pëcc lan ci xam ba ab yoon waaye sëñ Tuubaa am lii la wax fan la ko wax jasaawu sakkoor nun nag am na luñ ca xam naga ki bokkam moom saa nag naga ki bokkam dinañ xam ne tooñ wàllu yu baaxut ndax euh, palaat yooyu ñuy wax mus mus palaat bi nu tudd mus mas mas wi waaw nag moom ak i bokkam weeru safar wépp mas wi rek weeru safar wépp di nga dégg sax ñu naan dëkk bi am xaalis nit ñaa dee nit ñi dañoo pauvre mais weeru safar moom saa su ñëwee wedd ko ndax naataange yi day ne ndakaaru fan weeri fan dem Touba muy point pénal fan weeri fan koo ne Touba fukki junni mu ne la damay fay damay dugg kon pauvre bi ñuy wax ci réew mi fu man a nekk te weer wu mat sëkk foo dem noos ah moo tax dafa jëloon xalima ga moom Ahmadou Bamba ne wa maskani saa dëkk bii di Touba yow yàlla salim na nga musal dëkk bii minal fu jaari ci saay saay si am nun alla ahli bi maahin jeeri ñi fi dëkk nag na nga leen xeewal ndox yuy daw ci poti weñ ndox yuy daw ci ti way weñ Touba Touba jamono booba bu jëkk ba digg kaasi digg kaasi ndox kenn mënu ko faa am mais léegi te woo yaa nga fa ndox maa ngay dem kanet yaa nga fa conteneur yi pompiteer ya conteneur yi soble ya conteneur yi suukar ya conteneur diwlin ya lépp a ngay def Tuubaa la fay dem ci milliards ci weer bii kenn mësu koo gis te foo tourné ñu kar la ñu la sëñ bi sarax ma kaay dugg ci kër gi xiiwlu loolu mooy sëriñ Tuubaa loolu mooy màggal gi te da ba keroog àjjana dootul dakk wasalaamualeykum